jërë ngeen jëf mbokk yi bàyyi xel seen site internet 24actu point com dal leen ak jàmm ci li gën a fës ci xibaaru màggalu Touba édition 2018 bokk na ci ponk yi xibaar yi jëwriñ ji gàllo lépp lu jëm ci wàllum wér yaram ci biir réew bu Sénégal di Abdoulaye Diouf Sarr moom nag ñëwoon amaloon ab tukkib nemmeeku ci biir dëkk bu sell bi di Touba lim fi jotal ne wax nag ci ay xibaar bokk na ci jàngoro ji di deng jot nañ fee gis ci biir dëkk bu sell bi di Touba ci lu mat ci juróom-ñetti kaa kon xaat na askan wi daal di fagaru ci joojile jàngoro ginnaaw loolu tam jeneen jëwriñ ji nga xam ne moom moo gàlloo lépp lu jëm ci wàllum alam bi di environnement bi di mam Mame Thierno Dieng moom nag ñëwoon na ànd ak équipe am lam fi andi nag ni ab sëri ca bokk na ca ay jumtukaay yu takk yoo xam ne nii mën naa jàppale taalibe Baay Faal ci ketug dëkk bi waaye tam muy fësal projet boo xam ne ni ànd na ko ak benn société boo xam ne nii day càmbar lépp lu jëm ci wàllum plastique ñu xool naka la ñu war mën a liggéeyee fii ci dëkk bu sell bi ci Touba ci wàllum plastique lii daañu ko toftal li nga xam ne moom moo jëm ci SDE di kër gi nga xam ne moom moo gàlloo lépp lu jëm ci wàllum ndox mi ci réew bu Sénégal naam saytuwul ndox mi nga xam ne moo nekk dëkk bu sore bi Touba waaye nag andi na ak njàpp ndalam ak ndimbalam ci biir màggal gi ki nga xam ne mooy directeur ba di Abdoul Ba nag ma ngay fësal ne senn senn yi nga xam ne nii mi ngi ci biir tiwo yi ci biir dëkk bu sore bi Touba mën naa tax ba am ndox manqué jamonoy màggal daa ñu ko teeru ci biir xibaar yi na mu gën a yaatoo waa CSS tam tam di kër gi nga xam ne ñoom ñooy saytu lépp lu jëm ci wàllum suukar ci dëkk ci dëkk bi di euh, seen réew mi di Sénégal ñoom nag indi nañ seen addiya ci xalifa général des mourides toll ci ñaar fukki tonn ci euh, suukar moom la indi euh, daal di koy jàppe ci biir màggal gi mbokk yi lii mooy ponki xibaar yi bu nees kees ñu di ko génn ci faram gi jërë ngeen jëf mbokk yi taamoo bàyyi xel ñu ngi leen di sant bu baax leen gërëm ci bàyyi xel gi ci seen télévision bi lëkkale askan wi télévision Touba TV di leen ndokkeel ci weeru safar wi ñu nekk xibaar yi tey ji dañu koy door ak jëwriñ ji nga xam ne moom moo gàlloo lépp lu jëm ci wàllu wér gi yaram wi ak fagaru bi ci réew bi Sénégal di Abdoulaye Diouf saa moom nag àndan ànd ak mboolem kàngam yi nga xam ne ñoom ñooy liggéeyee ca boobulee pàccub ministère ci réew bu Sénégal ñëwoon ci dëkk bu sell bi ci Touba saytu fan la liggéey bi toll ci wàllu wér gu ci jamonoy màggal Touba gi nga xam ne moom la ñu dëgmal bi mu ñëwee nag daal dinay visité hôpital bu yees bi nga xam ne ni ña ngi koy tabax te yoonu daarul mufti wa hôpital boobu le mën naa jël ñu toll ñetti téeméer doomu aadama yoo xam ne nii seenu yaram dafa sutante waaye itam mu yokkute beneen xibaar moom jëwriñ ji di fësal ne jàngoro ji nga xam ne ñu ngi ko doon dégg ci diwaan bu Fatick ñu koy wax jàngoroy deng jamono ji nemmeeku nañu juróom ñetti doomu aadama yoo xam ne ni am nañu ko ci dëkk gi sell bi di Touba kon nag xaat na askan daal di fagaru ngir mën a moytu li nga xam ne moom moo jëm ci jooru julee jàngoro rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo di màggal si reportage. jëwriñ ji gàlloo lépp lu jëm ci wàllum wér-gu-yaram ci réew bu Sénégal di Abdoulaye Diouf Sarr dikkoon ci dëkk bu sell bi di Touba doon amal ab tukkib nemmeeku ànd ak délégation bu takkoo takku ci ñoo xam ne seen xam dafa màcc jëm ci wàllum wér yaram ci réew bu mu dikkee ci Touba nag li mu jot a def ci ay tournée bëri na ndax jot naa jaar ci diiwaan bu njaareem xool foofale naka la situation ba demee waaye fii ci dëkk bu sell bi di itam mu daal di fi indaale ab xibaar boo xam ne ma ngay fësal ne hôpital bi nga xam ne ñu ngi koy tabax ci yoon daaru muxti bi itam war a jël toll ci ñetti téeméer lal hôpital boobu lay filé ak fanweeri weer dina ñëw inauguré si ko. tout hôpital bu bees bi xamante ne moom moo war a accueillir euh, hôpitalu Touba bu mag bi ñuy tabax boo xamante ne na am ñetti téeméeri lii euh, mais aussi euh, spécialité yëpp danañu fi taxaw fi ñu ñëw xool ne entreprise bu bees bi ko war a démarrer muy Jetran vraiment mu ngi à pied d'œuvre te yaakaar naa ne dootul taxaw mukk euh, ñu ngi euh, am yaakaar ne euh, dans trente un mois danañu ñëw pour mën a donc inaugurer hôpital bu bees bi. ginnaaw loolu moom Abdoulaye Diouf Sarr mu yëkkati ay kàddu di fësal ne jàngoro ju ñuy woowee dengue te jamono jii mu diite loolu askan wi te ñu gisoon ay cas ci diwaan bu Fatick fii la ci diwaan bu Touba itam jot nañ fee nemmeeku juróom-ñett ci ay cas. li ñu seetlu mooy que ne màggal bi dafa nekk ci contexte. boo xamante ne am na feebar bu déclaré wu fële si région de Fatick ñu koy wax dengue euh, feebar boobu nag euh, feebar la boo xamante ne toujours bu at mi yeggee fu mel ni dañ koy seet bu baax a baax a baax donc euh, ministère de la santé si direction prévention mooy jël matukaay yëpp dugg fu nekk pour xool feebar boobu fu mu toll ba man si identifier ay cas yi ñu identifier Fatick am na yeneen cas yu ñu identifier fii tam si Touba lu dallu si juróom-ñetti. juróom-ñetti cas euh, donc may félicité service yooyu itam parce que euh, bu fekkente ne am nga pas-pasu di dugg fu nekk set ba gis ne ah feebar bi kat mi ngi fi nga jóg nag ànd ak ñi nga war a àndal ñëpp pour faj ko loolu dañ koy rafetlu. ñu tëjal kàddoom Abdoulaye Diouf saax di fësal ci poste avancé yi maanaam bu fajukaay yi nga xam ne nii fas yéene nañ leen def ci dëkk bu sell bi ci Touba ba a nekk bu sa yaram sutaante nga mën a dem ñu daal la faj ma ngay fësal ne loolu le dugal nañ ci jumtukaayu xarala yu yees yi ndax ko am connexion internet di nga mën a gis bu fajukaay yooyu le que ne euh, danañu indi lu bees loo xamante ne donc dafa yokk si li fi woon par rapport ak daaw loolu nag euh, euh, li ngay wax léegi si la bokk mooy que ne dañuy utiliser xaral yu bees yi sànq bi ñuy présenté fële si Diourbel médecin chef bi présenté na carte point de service yëpp fépp foo xamante ne war nañ fa mën a faju mu ne carte boobu dana disponible si donc site yi dana disponible si euh, plateforme yi ba képp koo xamante ne rek yor nga donc connexion war nga mën a xam fan lañ la mën a fajee nu mu gën a gaawee ak fi gën a jege fa nga. Ah, bu ñu jógee ci jooju la jëwriñ ñu jàll ci jeneen ji nag mooy ji yor lu jëm ci wàllum alam bi di environnement ah, di maam Thierno Dieng moom nag moom itam àndoon ak délégation bu takku bokk na ca ñooñee ab société boo xam ne ni day yëngu ci saytu lépp lu jëm ci wàllum plastique ñu ñëwoon ci dëkk bu sell bi di Touba. indi ay jumtukaay yoo xam ne nii mën naa jàppale jëwriñ yi Baay Faal yi ci li nga xam ne moo jëm cetub dëkk bi waaye tam mu wax ne société boobu le mën naa indi ay projet yu am solo yoo xam ne nii bu ñu ko jàngatee mën naa indi am koom fii ci dëkk bu sell bi ci Touba ñu teewlu maam Thierno Dieng ginnaaw bu mu jébbalee euh, jumtukaay yooyu Serigne Cheikh Mbacke Abdou Latif jëwriñ ji gàlloo lépp lu jëm ci wàllum alam bi ak li koy saytu di maam Thierno Dieng di ministre de l' environnement moom nag ñëwoon na ci dëkk bu sell bi ci Touba comme ni ko yeneen jëwriñ yi fi nekkoon daan ko defee. lu ñu indi tey nag lu nu war la ñun lu nu bàkku ci def lu nu war du ñu fi remercier nit parce qu'il a lu ñu def c'est un devoir républicain et ensuite un devoir di war waree fu te taalibe ñaar laa fi ñëwee ñëwee naa ci turu murit ñëwee naa fi ci taalibe Sëñ Tuubaa moom mi le nag indil toll ci matériel bu takkoo takku jëmale ko ci catug dëkk bi. ak ni ñu koy saytoo ay pelle ay brouette ay poubelle yoo xamante ni des na ko mën a teg ci yenn ci gox-goxaan yi. ngir ñu di fa ramasser mbalit mi di ko fa dugal moom maam Thierno Dieng nag nangut a fësal benn yoon xayma bi nga xamante ni indi na ko waaye lu di fësal ne yéeneem ëpp na ci dëkk bu sell bi ci Touba. li ma fi indi damaa gaaw indi ko ndax Touba loo fi indi boo gaawul a ñëw ñu indi fi lu ko ëpp wala ñu indi lu fàttali ndax ngay ñëw loolu tax ma gaaw ñëw te li may indi tam war naa gaaw ñëw ndax dëkk bi dañoo bëgg mu mel na mën a mel ba mën a teeru gan ñi te la ca war a jiitu mooy set donc lu ñuy set setale moo fi war a njëkk moo tax du gaawtu ñëw loolu daal leen indi woon lim bi moom jërul ma koy wax filmer leen rek li ngeen gis bu ngeen ko gisee rek bu ñu xamee dañ xam yokku na yokku nañ unité bi indi nañ lu ndaawul indi ndax camion bi nga gis li ci nekk wax naa ko léegi ñetti téeméeri sat la juróomi téeméeri ay paan yu ñuy raxasoo juróomi téeméer lu nekk lépp loo xam si rek ci wàllu sat la tet la mas a ñëw te moom mii moo ko fi indi te lim mu bëgg a wane mooy li fi indi li ko fi jëlee mooy place yi muy for di ko defaraat waaw loolu aussi lu kii la te ñoo ngi ñaan suñu borom ba bu dee dellusitee mu mayaat nu jëf jumtukaay yu tax nu man a yokk li ñu woon li liñ ci lépp mun nu ko wax waaye filmer leen li ngeen gis rek wan ko ñu xam nu mu demee jërëjëf ci visitub jëwriñ ji sax ànd na ak kuréel gu bees goo xamante ne nii dañuy saytu li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum plastique bi ab fàttali nag matériel bi ñëw na ci waxtoom ndax dafa fekk benn fan ci weerub safar mbooleem dëkk bi sell bi ci Touba ñi nga xam ne ñoom ñoo di Baay Faal yi ñu génn ngir amal li nga xamante ne nii moo di cetub dëkk bi boobule matériel nag mi ngi ko jébbal Serigne Cheikh Mbacke Abdou Latif mi nga xamante ne nii moom la Serigne bi gàll lépp lu jëm ci saytu mbalit mi ci dëkk bi ak li nga xam ne moom moo di setal ci dale ci benn fan ci weerub safar ba keroog dëkk bi di set wecci ginnaaw bi mu jëlee matériel bi moom Serigne Abdou Latif Mbacké nag ci jëwriñ ji nag ànd na ak délégation bi mu àndal jëm ci xalif général des mourides ngir sàkku ci moom ñaan. bu ñu jógee ci euh, mbir mu ni mel ci wàllum alam bi dañuy jàll ci wàllum ndox SDE di kër gi nga xam ne moom moo gàlloo lépp lu jëm euh, ci wàllum ndox ci réew bu Sénégal naam saytuwul ndox mi fii ci dëkk bu sell bi Touba. waaye ñoom itam ñëw nañu ci kanamu ki nga xam ne moom moo di Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr mi nga xam ne moom moo di porte-parole yoonu murit ngir daal di indi seen ndimbal waaye itam indi seen jàppandal ci ay technicien ak ñëpp ñi nga xam ne ay kàngam lañ ca googule kër ngir ñu daal di gën a mën a saytu ndox mi ci jamonoy màggal tubaa ba du manqué waaye itam directeur bii di Abdoul Mbaye yëkkati na ay kàddu ginnaaw bi janoo ak Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadir ak ci taskatu xibaar yi di fësal ni daal yenn ci seen seen tiwo yi nga xam ne ñi ngi koy nemmeeku ci réseau bi te xaw a yaatu lool loolu lépp andi ak galfan gàllankoor ci li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum ndox mi jamonoy màggal Touba ñu teelu directeur u e di Abdoul Ba président Mansour Kama président conseil d' administration ñëw fii di nemmeeku Serigne Touba fex euh, ànd ak ñoom si Magalu bi ñu fi ñëwee woon yaa a mois de cela waxoon nañ seriñ bi que dañ ànd ak ñoom fexe ba ren ji euh, bañ difficulté distribution ndox mu wàññeeku. di ci ànd nag ak OFOR di ci ànd ak popul am ministère de l' liggéey si production bi liggéey si qualité eau moo tax pompe de ñu fi installé. liggéey si recherche de fuite 80 fuites lañ fi réparé fii ci Touba puis liggéey si ay point d'eau ak borne fontaine euh, événement bu mag la 5 millions de personnes fi ñuy ñëw si Magalu Touba il faut que ñëpp ànd si ñun SDE loolu mooy suñu contribution fexe ba euh, difficulté bañ am fii ci euh, ci Magalu Touba bi. dañ daan intervenir ren ji suñu intervention suñu intervention dafa gën a am doole. pourquoi parce que événement bu mag la dañuy liggéey ci RSE dañuy ànd ak OFOR ànd ak ministère de fii ci Touba euh, ci événement bi ci Magalu Touba. Euh, xam nga Dakar mooy capitale Sénégal c'est vrai que amoon na difficulté mais tey jii lu lu ñu dépassé la ñun ak SONES ak ministère hydraulique euh, gis ngeen ci liggéeyu SDE fexe nañ bi léegi difficulté bañ a amati ci ren li ñu def forage yi SONES def ci Bayax ak ànd ci ak liggéeyu SDE. moo tax difficulté yi li ça beaucoup diminué te dañ continuer. xibaar yi dañu koy jeexalee ci CSS di kër gi nga xam ne moom mooy defar suukar ci réew bu Sénégal ñoom nag euh, ànd nañu ak mbooleem personnel ba nga xam ne ñoom ñooy liggéeyee foofee ca usine ba wala itam ñu ca ëpp ñëw indi seenub ziar ci kanamu xalifa général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. addiya ji nag toll na ci ñaar fukki tonn ci suukar ngir ñu dugale ko ci seen loxo ah, ci màggalu ko Touba ki nga xamante ni moom moo di Yaxya Tanja di ki nga xam moo gàlloo ca usine boobee di CSS lépp lu jëm ci wàllum communication ginnaawam ndajeem ak sëriñ bi di la dénk taskatu xibaar yi. sunu tànk fii tey Touba mooy ñëw gis xalif bi indil sunu ndimbal pour euh, màggal bu ñuy dem euh, tey délégation ko ko. CSS moo fi ñëw cette délégation bi représenté na maanaam CSS yëpp maanaam mu naan ne huit mille salariés yëpp tey ñu ngi fi par rapport ci délégation parce que ci délégation bi di ngay gis euh, direction yëpp di gis euh, partenaires sociaux yëpp. aussi lu gën a rëy ci euh, ci kii bi tey mooy dañu ànd ak sunu directeur général monsieur Vincent Lourou mu ñëw gunge gis xalif bi toog a xalif bi waxtaan ak xalif bi wax ko yëg-yëgam ci këru diine yi ci. màggal bi di ñëw aussi en dehors cela aussi ñëw sàkku ñaan aussi am na ay taalibe la ñëw sàkku ñaan ci xalif bi ci campagne bu ñu dem buy démarrer au mois fin novembre incha allah te ku ne démarrage campagne nga xam ne ah, démarrage bu mag la ci compagnie sucrière sénégalaise maanaam foofu la liggéey bi di tàmmali maanaam usine bi di démarrer commencé produire sucre te ku nekk production sucre da nga xam wax ni atteindre ay objectif parce que ñu ngi liggéey ak nguur Sénégal pour di ko jàppale ci autosuffisance alimentaire ñun suñu wàllu mbir ñu ngi jëm euh, liggéey ci autosuffisance alimentaire en sucre ren maanaam euh, atteindre nañu objectif boo xam ne macha allah xam naa c'est une premier fois euh, mooy aboutissement projet cent je pense que CSS yàgg na di def loolu benn tradition bu ñu la tey ñu ngi indi vingt tonnes suukar ak ay suukar boo xam ne suukar bi mooy. moom lay produit ñu en tant que moom la ñu am comme produit euh, comme produit moom lay indi tey waa Touba ak ndox xam ne ku ne màggal ku nekk soxla na ndox tàngoor bi apporter ay pack ndox aussi pour euh, pour joxe ko taalibe yi ci jour màggal. jaa ngeen jëf mbokk ñu doon tataan ak di bàyyi xel xibaar yi bàyyi ci dëkk bu sell bi ci Touba soxal. magalu Touba édition 2018 fu ngeen mën di nekk ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm ci bàyyi xel bi di gërëm itam mbooleem way xarla yi nga xam ne ñoom lañu àndaloon ba ngeen mën ñoo teg gët ci cadrage bi Serigne Ousseynou Mbodj ak mbooleem ñi nga xam ne jàpp nañ ci ñu ngi leen di dig dajee suba jàmm leen ñaanal guddik jàmm jërë ngeen jëf